kon nag maa ngi leen di ñaanal man pool mi ñu tëj kaso ci turu kirist ndax sas wi may bey ci yéen xeet yi dul yawut wóor na ma ni dégg ngeen yenub xamle yiwu yàlla bi mu ma jagleel jëm ci yéen yàlla feeñu na ma xamal ma mbooti mbir mi mu tëral ni ma leen ko bind ci kàddu yu néew bu ngeen jàngee loolu dingeen mën a xam bu wér dégg gi ma am ci mbooti mbiri kirist te jamono yi weesu loolu kumpa woon ci doomu aadama waaye léegi yàlla feeñalal na ko ay ndawam ak ay yonentam yu sell yi jaarale ko ci xel mu sell mi mbir mi nii la tëdde léegi xeet yi dul yawut dañoo bokk ci cër ak yawut yi bokk ak ñoom jenn jëm bokk wàll ci xéewal yi yàlla digge ci kirist yéesu te xabaar bu baax bi xamle ko xamle xabaar bu baax boobu nag yàlla fal na ma ci jawriñ ci kaw yiwam te di ma dooleel ci kàttanam may na ma man mi gën a tuuti ci gaay yàlla yu sell yi may xabaar xeeti àddina barkeel yu xel dajul yi ci kirist te it may sulli melokaanu mbir mu xóot mi yàlla tëral te doon kumpa njaalbeen ga ba tey ci moom mi sos lépp fànn ngir kilifa yi ak boroom sañ-sañ ca barab yu kawe ya mën a xam ni xelum yàlla xóote jaar ci li ñu gis ci mbooloom ñi gëm kirist mooy dogal bi sax dàkk te yàlla tëral ko ci kirist yeesu sunu boroom ci turam am nañu kóolute fa kanam yàlla ak bunt bu yaatu ci moom ci kaw ngëm maa ngi leen di ñaan nag ngeen bañ a yoqi ndax coono yi may jële ci bey sama sas ci yéen xam ni coono yooyu ñoo leen di jural ndam moo tax maa ngi sukk jublu ci yàlla baay bi cosaanul njaboot gépp muy ci kaw muy ci suuf ma di ko ñaan mu may leen ci kaw ndamam lu amul kem xel mu sell mi fedd li seen baatin ak kàttan gu màgg ba kirist dëkk ci seeni xol ci kaw ngëm te ngeen sax noonu te samp ci mbëggeelu yàlla ba jegoo yéen ak gaay yàlla yu sell yépp guddaay ba yaatuwaay ba kawe ga ak xootaay ba te xam mbëggeelu kirist gi raw mépp xel noonu dingeen fees dell ak matuk yàlla léegi nag na ndam li féete ak yàlla mi mën a yeggale lépp luy ñaan mbaa yéene ba weesu ko fuuf dëppoo kàttan gi jëf ci nun moo yelloo ndamul mbooloom ñi gëm jamonooy jamono ba faw jaar ci kirist yéesu amiin